mbokk yi jërëjëf ñu ngi leen di bëggee di leen wax dal leen jàmm ci suñu jotaay balaa ñuy sori j'aimerais quand même euh, dire merci à tous ces enfants qui obligent les parents à nous regarder depuis le programme Salle des profs pour apprendre et pour poursuivre les programmes pédagogiques notamment cette émission pour laquelle nous avons des retours des enfants qui apprennent beaucoup sur les gestes barrières et ce qu'il faut Yusra Sanou et tous ces autres enfants dont on a reçu les messages merci de nous suivre et d'obliger les parents à nous suivre mbokk yi ñu dal ci suñu jotaay bu tey bi nga xam ni dimanche la tombeel ni ñu koy defee bés bu ne kilifay waa kër xam xamle situation bi fi jàngoro ji toll dinañ ci ñëw ci jàngat li ci lim bi fi mu toll bu ñu ko joxee léegi rek ñu wax leen ko terewul jàngoro ji mu ngi fii di wéy ci biir réew mi ni ñu koy waxee bés bu nekk li ciy musal nit ñi ku ne mënal na ko boppam ndax set ci sa bopp la di raxasu mooy tandiku saafante bu bari bi génn bu bari bi wàññi yitte yi ci biti ci kilifa yi kër docteur président de la république feelu leen ci joxe ay ndigal ba ci dem ci couvre-feu lu fi gëj ndax ñu bari ñu seen at matul fanweeri at mosuñoo fekkee couvre-feu fii ci biir réew mi kon ñu xam ni yëf yi du caaxaan wax dëgg fa yàlla te bu ñu gisee li xew ci àdduna bi fu mën di doon xam ni xëy na feebar bi kat ñun ñoo mën a suturaal suñu bopp waaye du tànn du tànneef du ci der bu ñuul du ci naaj bu tàng du ci xeet du ci deret li ñu ci musal ba fi mu toll nii xëy na ci ñun la aaju ñu war ci continuer saxoo ko tey fas yéene waxtaanee loo xam ne ci xel yi la ak lu tax xëy na ñu bari dunduñu feebar bi ci biir réew mi. te nara a indi lor ñi nga xam ne nii ñu ngi ciy góor góorlu pour muslu ci ndax nag bu desee ci kenn rek benn nit boo xamante ne nii jëfewul li nga xam ne nii moom la ñuy wax mën na indi lor askan wi yëpp ba tax na nag ñuy war a bàyyante xel mayante nopp bu baax te gën koo jëfee tey bi nga xamante ni nii ministère de la santé def na situation bi ñu ngi toll ci deux cent quatre nit yoo xamante ni doomu jàngoro jot na leen dugg liñ ciy sante yàlla mooy tey ñi wér ñoo ëpp ñi des ci kër loxo wax kër docteur ndax lu tolloog téeméeri nit ak juróom fukk wér nañu ba ñibbi seen kër ci limu ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk donc jar naa sant yàlla bu baax tey ñaari kaa ñoo génn ñi des ci wàllu kër docteur te ñu leen di toppatoo tollu na ci téeméeri nit ak juróom-benn bu ñu sañee ni rek. waaye nag jarul a naagu ndax xëy na situation wu tey mën na bañ doon situation wu suba waaye fan yi yëpp li ci bees te di ndam mooy ñiy wér ñoo ëpp ñi ñuy lim ne doomu jàngoro bi dugg na leen donc loolu jar nay bàyyi xel bu ñu ko méngaleek nag li xew ci àdduna bi yëpp xëy na Sénégal mën naa sant yàlla jarul ñuy ñëwati ci li mi nga xam ne réew yu bari yoo xam ne feebar bi ëpp na leen doole bu ñu demee bay lim ci ay pays yu am doole ci wàllu wér gu naan fukki junniy nit daanu nañ te bis bu ne ñu lim junniy nit yoo xam ne nii feebar bi tëral na leen ba yóbbu seen bakken ñu xam ni kon ñu ngi ci sant yàlla ñun fii ci senegal ci ñaari nit ñoo fi gaañoogum ci bi fi jàngoro ju duggee ci le 2 mars ba léegi weer ak lu teg rek la tey ci gëstu bi ci wàllu xel yi dañu fi dalal ñoo xam ne nii. vraiment ñuy gëstu société bi di ay socio anthropologue njëkkee ko ci suñu jigéen ndax dañ leen di cëral suñu jigéen bi nga xam ne moom a féete càmmoñ socio anthropologue docteur Ndak Diop ñu ngi lay dalal dalal jàmm Ndak. jërëjëf monsieur di la gërëm ci invitation bi nga ñu nga ñu invité fii ci sa plateau bi ñoo ngi tamit euh, di nuyu say téléspectateurs di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu fépp fu nu doomu sénégalais di seetaan ci àdduna wërngal képp et euh, merci tamit ci ci loolu lépp. jërëjëf Ndak Diop docteur en socio-anthropologie suñu kilifa ñun ñëpp ci plateau bi professeur Ibrahima Niang professeur ñu ngi lay dalal dalal jàmm. jërëjëf euh, Cissé maa ngi lay nuyu di nuyu euh, kilifa te TFM bi. Hmm. leen di nuyu ñëpp di nuyu sa téléspectateurs yëpp. Eh, di nuyu sama naataango bi eh, docteur Ndak Diop eh, di nuyu seen waa kër di nuyu képp koo xam ne mi ngi mi ngi xeex xeex mi ngi mi ngi xeex. jàngoro ji jàngoro ji. Hmm. Hmm. Cheikh Ibrahima Niang lan moo ci wàllu ñuy gëstu société bi ci xeex bu mel nii ndax xëy na dañoo yaakaaroon ni rek wàllu waa kër docteur la. lan moo ci aajo ci ñuy liggéey ci xel yi tamit pour ñu mën koo nangu ba mën ko wattu. Mm-hmm. xam nga euh, ñun li ñuy liggéey euh, ci mbirum euh, nit ak nite la sociologie mooy xool lan la nit ñi di def nan la ñuy comporté wu lan lay jëf ci biir société bi anthropologie nag moom mooy seet nit ci boppam ak nite ñun dañuy boole ñaar ñi Euh, feebar boo munti gis ak épidémie boo munti gis ñaari yëf la benn bi biomédical science biomédicale ñoom ñooy seet doomu jàngoro bi ci boppam ñu wut ko ci biir laboratoire euh, euh, gëstu ko ba gis ne ban façon doomu jàngoro la bu ñu ci loolu docteur bi docteur bi nay seet nan lay fexe sa yaram yow soit médicament bi rey doomu jàngoro bi ci sa biir yaram wala sa yaram nan lay def bi daaneel doomu doomu jàngoro boobu waaye épidémie weesu na loolu épidémie da ngay seet jàngoro bi naka lay jógee ci nit dem ci neen te keneen ki su ñu nee épidémie tudd nga relation sociale maanaam ñaari nit diggante nit ak nit diggante groupe nit ak groupe nit te loolu laaj na nga xool nit kooku mooy kan lan moo nekk ci bopp bi lan la ragal. nan lay gisee épidémie naka la wóoloo bopp fan ci fan ca ca lan la wóolu boppam foofu nga xam ne wóolu na foofu boppam maanaam am na xalaat na ni am na ci kattan nan ngay renforcer loolu pour que société bi si boppam ñëw daaneel ko daan daaneel daaneel loolu loolu nag socio anthropologue bi moom mooy gëstu loolu euh, euh, socio anthropologue yi tam waroon nañ dugg maanaam ba loo boota sa sa deuxième question bi la sax ci waajal gàttandu mm-hmm. parce que ci ci gàttandu bi am na loo xam ne xaw na foo ji si jaxatuti parce que gàttandu bi lu ëpp si gàttandu bi gàttandu côté médical la ak biomédical loolu moo tax résultat yi nga am ni am solo lool. ça di dire que Sénégal amoon na préparation médicale boo xam ne may na ko mu song feebar bi daan ko bi nga xam ne léegi euh, benn cas sa ëpp na waaye ñaari cas rek lañu yem pour le waaye noonu mu ko gàttandoo sur le plan médical gàttanduwuñu ko sur le plan social. loolu moo tax question bi nga posé mhm. léegi nii am am am tout sa pertinence c'est-à-dire sur le plan social naka la ko waroon gàttandu naka la ñu waroon préparer société bi parce que société bi mooy xeex jàngoro bi que jàngoro bi mi ngi ci biir société bi société bi mooy trouver moyen yoo xam ne dina mën a daan jàngoro bi te bu boobaa ñu gis ñu dem ne ci biir loolu am na communication daanañ lay waxtaan nit nit ñi mhm. nit balaa ngay waxtaan ak moom nga xam ko mhm. balaa ngay xaw moom nga xam ko man su ma xamul ne yow dégg nga dégg nga dégg nga wolof su ma wax ak yow wolof fekk yow français nga dégg wala bambara nga dégg wala joolaa nga dégg du ma mun a du ma mun a waxtaan ak yow. Mm-hmm. boo déggee waxtaan rek wax communiquer rek ça veut dire que quelque part man xam naa la am na lu mu la xam noo xam demb ma dem ba gën la xam dem ça veut dire que nit ki si boppam société bi si boppam lan lan la xam ci boppam lan la xam ci dooleem ci ci loolu lañ war a jóge pour. sukkandiku ci loolu mun tabax dara parce que xeex la alors loolu ñu nga pour nga xam nit ki nga xam luy doole nit ki ak luy faiblesse nit ki nga mun tabax dara ak moom parce que il nga tabax dara ak moom loolu sax préparation boobu moo xaw a manqué tuuti lu tax préparation boobu manqué préparation dafa manqué parce que ba léegi ni ñu formé dañuy formé ñu liggéey ci euh, euh, ci ci paradigme ci maanaam mi ngi mel ni nga ne cin cin bu mag. boo xam ne mën nga ci togg benn ceeb mbana mhm. boo xam ne mën nga ci togg ceeb bana boobu pour mbana pour ceeb la ay ngénte ak yooyu mhm. mais bu fekkee ñaari cin nga bëgg xëy na ay ay cin yu ndaw nga ngay jël xal euh, euh, société bu nekk dafay am façon cin yoo xam ne ci cin yooyu ngay togg xalaat bi ñun dañuy jël cin yoo xam ne cin occidentaux yi la moo tax suñu solution yëpp ay solution occidentale la xalaatuñu nag cin yan cin ñoo nekk fi yoo xam ne dinañ mun togg réponse yi. gëmoo ni pexey xeex jàngoro ji ay hmm. pexe universel la maanaam ci ñuy wax yëpp. geste barrière sorente leen moytu leen saafonte bu bari bi hmm. moytu leen xew yi hmm. yooyu yaakaaroon ni ay solution universelle la am na ci loo xam ne nii mën nañu ko am loo xam ne nii ñun mënuñu ko waaw xam nga ndox mi ndox mi ndox mi ngay wax ni universelle la foo dem fekk waaye butéel yi duñ benn ndox solution lu mu munti universel universel il faut que nga reconceptualiser ko maanaam nga xalaataat ko nga toggaat ko boo koy toggaat nag nga adapté ko ci sa réalité bopp. dinañ ñëw léegi ci gën koo ah. xóotal. est-ce que ba fi toll nii. Hmm. xeex bi ñu bari ñuy dégg ñu ciy wax waa Kër Docteur la. Hmm. est-ce que yéen gëstukat yi xel yi ak société bi. Hmm. duggu ngeen dugal nañ leen ci stratégie nationale bi am ngeen ci cër après ma ñëw ci Adja Ndak. <laughs> suñu cër Eh, daal rek mën naa wax sax ñun ñoo ko wutal bopp dañuy dem fëgg dañuy dem fëgg fëgg but pour pour ñu a gëm waaw mu ñu mu ñu jëm dañu fëgg te du léegi nag du benn ne socio anthropologue taxaw si buntu buntu bi rek di fëgg médecin hey ñun ci lañ bokk ci lañ bokk ci lañ bokk mm-hmm. pour ñu ñu soog ñu gàttandu pour ñu soog ñu recevoir parce que ni ñuy jàngalee médecine ak ni ñuy parce que ni ñuy jàngalee médecine dañuy wax santé waaye de en réalité médecine la ñuy jàngale ñu jàngale santé dañu foog ne santé santé lépp affaire u médecin la alors que santé du médecin santé mooy naka la nit ñi di def bi aar seen bopp maanaam prévention par exemple naka la nit ñi di def ba renforcer doole kattan bi nekk seen yaram ak ci seen société parce que naka la ngeen parce que euh, gis nga affaire corona bi dañu yëngalagul mbooloo doole bi nekk ci mbooloo mi rek doole bu nekk ci mbooloo bi xejul ci kaw ci kaw corona xejul ci. professeur. <laughs> léegi xanaa bi jaaxal àdduna waaw xanaa ma may nekk wax ba ne dinaa dellu si ci suñu doole doole corona <laughs> moo tax. dañuy wax li yëngu la ko yëngal ko. da ko yëngal ko ba doole ba bi moo yëngal moo yëngal jamono moo yëngal nit ñi. <laughs> xaaral mi euh, yëngal ko rek dina dàq. socio anthropologue bu ma neexee ne kon fekkee moo leen ci boole ndax mu ah. ngeen ci cër ni ko professeur eh, Cheikh Ibrahima Niang mm-hmm. waxee mais dafa di lépp dafa yematul rek ci wàllu kër docteur xam nga yeneen feebar yi mhm. da ngay feebar dem ñu faj la mu jeex mhm. mais kër waa kër docteur sax seen pexe yi tey mhm. dañ ko delloo ci askan wi si lu bari c'est-à-dire askan wi la ñuy wax ñu suturaal leen pour bañ a feebar ñoom yematuñu ci faj mais dañuy wax nit ñi fexe leen bañ a feebar te bañ a feebar boobu mu ngi aju ci gestes yoo xam ne xëy na ku ne mën na ko lu tax mu jafe jërëjëf maanaam ne nit raxasul ne nit setal ne nit moytu la dem ci mbooloo ci mbooloo lu tax mu jafe ñu ñun dëgg la dëgg la li li nga fi nga génnee nii dëgg la et puis maa ngi gërëm euh, sama sama professeur la nag <laughs> maa ngi gërëm maa ngi gërëm aussi. kon dañ maa nax ci liñ leen boole ah. <laughs> Serigne Dia plateau bi waruloon demee. <laughs> donc li mu wax ne c'est vrai ah. ñoo ñooñu ci euh, dem nañu fëgg bi ñu fëggee dugg nañu. ñun ñi di wax ak yow ñu ngi woon Touba depuis premier cas bi fa ñu nekkoon mhm. li ñu def bind nañ ko documenté nañ ko li nga wax nii tamit ne geste barrière yi ñun sax bu ñuy doxantu ci eh, dañuy doxantu ci koñ yi bés bu nekk dañuy wax exploration mhm. ci suñu ci suñu xeetu mhm. euh, euh, gëstu la bokk dañuy explorer dañuy xool ñun sax ñun ñi nga xamante ni sax ñu ngi ciy liggéey dañuy xaw tiit ndax dañuy gis nit yi dafa mel ni. dunduñu feebar waa corona amul. <laughs> am na sax foo ko xaw a euh, sentir tuuti ñu ngi def tuuti ñu ngi def tuuti tuuti li ñu mën mais am na foo xam ne moom danga naan ndax ndax xam nañ ne que corona am na fa. mais li nga wax léegi ne gest geste barrière yi c'est universel c'est vrai que c'est universel mais dama tey dama xëy bi may ñëw léegi maa ngi ci wax ak professeur ci ñetti biir xam nga ki ñëw ne la raxasu naa raxasu naa léegi. Mm-hmm. comprendre le concept raxas bi. parce que concept raxas bi mooy te loolu foofu peut-être le le le message yi évolué wu. xam nga damay seetaan télé tout le temps message wu 1er février ba tey mooy daw. Mhm. ba avril mooy daw ba tey. évolué wul évolué wul xam nga boo ne ki ñëw ne la. maa ngi raxasu naa. Mhm. raxasu naa léegi. set naa raxas soxlaatul may raxasuwaat. xamul concept bi. Mhm. parce que concept bi bi ñu koy wax mooy yow loolu laal rek mën naa am doomu jàngoro bi. raxasoo say loxo doomu jàngoro bi ngay raxas nga xam nga loolu leeru mm-hmm. bu leerul ci nit ki du dugal concept bi soo jëlee sëqat. xam nga nit yi fii bu ñuy sëqat sax dinañu xaw a sëgg nii. Mm-hmm. mu wàcc. Mm-hmm. mais bu ñuy tisli nu ñu def. dañuy bàyyi mu génn. nga xam nga lu mu àndal. parce que dafay valider benn genre dimension religieuse. seede yàlla. donc dañ koy expulser. pour ñëpp dégg ko parce que seede yàlla la ci lu mu doon def wala ci lu mu doon wax xam nga kooku ça va être difficile nga bloqué loo ko mm-hmm. Mm-hmm. parce que joxoo ko raisonnement pour mu bloqué ko soo ko ni woon li ngay génne léppi virus la te foofu la ñuy duggee ci troisième point bi troisième point bi dañu ni dañu waxul nit yi ne ñëpp mën nañu yor doomu jàngoro bi fi mu nekk nii parce que boo dégloo médecin yi ñu ngi lay wax ay cas asymptomatique mooy ñi nga xamante ni ñu ngi yor doomu jàngoro bi nekk ci biir nit yi. mais di ko fal di ko wal feeñul ci ñoom waaw mhm. xam nga kooku il faut ñu dem ba population bi au lieu ñu wax protéger vous ñu ne déedéet ne transmettez pas. Mhm. parce que kii def nii mooy xalaat ni am na doomu jàngoro buy buy sëqat wala buy tisli kooku su leerul ci bopp yi concept yi bu leerul dañuy def le minimum ni la def naa ki ñëw ni la raxasu naa loo ci man raxasu na ay loxoom set na set na wecc da ngay gis dafay set wecc mais xamul ni liñ koy raxasloo du loxo yi mais doomu jàngoro bi nekk ci loxo yi nga xam ne bu laalee butéel mun na ko def xam nga damay dem ci garage yi xam nga dañuy dañuy raxasu maanaam ñu taxaw foofu tuuti maanaam mm-hmm. euh, digle raxasu leen bi lu càggan nit ki dafa dafa tilim. waaw xëy na foofu la ñu leeralul. parce que nit ki ñëw ci mbooloo. bëgg laa ne non raxasu naa mooy daf laa bëgg wax ni set naa. mais xamul ni doomu jàngoro ji. du du setu. sa loxo dafa salte wala dara doomu jàngoro mun a nekk mën nga raxasu léegi laal table bi léegi doomu jàngoro ji nekk ci mu mel ni sa loxo set na fekk setul parce que communication bi ci set naa bi la ko def nit ki nga koy jox ki kiy intercepte message bi ci set naa la ko jëlee donc concept bi du bouger tant que yow évolué woo bi ñu demee ba épidémie dem une semaine deux semaine waroon nañu gis ci tele yeneen message yoo xamante ni mooy ñëw renforcer premier message bi bi nga xam ni dugg na ci raxasu mais déedéet nga ni du raxasu kese su ma nekkee ci ci ci di xaar euh, bus xam nga mën nga raxasu balaa ngay dugg booy dugg jàpp nga ci weñ bi hmm. sa loxo xëy na am na virus hmm. xam nga kooku raxasoom day dal di nekkaat beneen niveau pour mu raxasuwaat raxasuwaatam day taxaw nga jàpp ci weñ bi mu ngi jël nga virus jël nga virus bi loo laalaat mën nga ko loo laalaat mën ko jox virus fekk raxasu nga fekk raxasu nga bi muy dugg yàlla xam na ni raxasu na et le dernier point bi may wax nit ki tamit dafay am ay effet d'entraînement. docteur man de yaa ngi tax bëggatuma laa table bi si toll nii wóor na yàlla. <laughs> dafa dañuy wax dafa am lu sociologue yi di wax l'effet d'entraînement l'effet mimétisme kooku da nga koy créer ci ay moment la on est des on est à dañu nekk ci moment de tension des fois li li sama professeur di wax dangay ngay créer des effets mimétisme xam nga boo nee nit ki raxasu nit ki defal lii fi nga xamante ni am nga xalaat nga ni fii fukki nit juróom fukki nit dinañ fi jaar par jour nga teg fa dispositif bu dee ñaar ñett ñeent nga xam ni ku ñëw raxas ku ñëw def lii ku ñëw def lii dafay am li ñuy wax effet d'entraînement mm-hmm. effet d'entraînement boobu nag dañ ko créé te foog nga créer ko parce que xam nga ni sama population dafa dëgër bopp boo ne sama population dafa dëgër bopp yow ci nga bokk man ci laa bokk keneen ci la bokk. Hmm. donc mënoo ko caractériser à parti de ton œil. gis nga dëgër bopp boobu. bi nga defee ci bàkk bi. moo ko wax moo ñu àtte. parce que xam ku ne. ëpp naa wax parce que ñëpp dëgëruñ ma ne ko du yaatal lawaluñu ko pour ñëpp. mais hmm. am na ci ñoo xam ne xëy na. te feebar dañuy wax ni bu ko bu benn nit deful effort bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy def rek mën naa yàq lépp. Hmm. mais docteur li nga wax léegi ak li professeur Cheikh Ibrahima wax. dafa mel ni dafa woroo parce que bu ma déggee professeur. nee na fëgg ngeen ba ñu dugal leen yow boo waxee ni message yi évolué maanaam xanaa seen message c' est pas assez puissant ba ñu ah, déggal leen ko ci comité bi. <laughs> jëfee ko <laughs> warawul non warawul xam nga. <laughs> xam nga ñun ku ne niveau bi nga nekk. Mhm. Euh, ñu ngi wax de. mais est-ce que leen di dégg foofu. mel na ni ki déggaguñu leen mel ni waaw wante ñu ngi. waaw mais ñu ngi wax ñu ngi wax te li ñuy wax tamit yéen ñii dañ leen koy wax. parce que hmm. euh, bi ñu nekkee Touba nee naa bu ñuy wax dama ne médecin yi dee leen ñuy déglu. parce que da ngeen di nekk ay communican ma ne infirmières yi dee leen ñuy déglu parce que da ngeen nekk ay communicants journalistes yi peut-être dee leen ñuy déglu da ngeen di nekk ay communicants parce que li ma lay wax léegi nii damay seetaan seen télé. depuis le début damay xool léegi léegi ma noté ma ne ah xëy na suba ma am message bu gën a ah, bees a bees. ndaag nag pourtant ñun ñu ngi ci de. waaw non vous vous faites un excellent un excellent ah. moom maa ngi leen koy wax fii fii fii parce que xam nga ku bàyyi sa lépp. jël lépp nga def ko ci corona kenn mënu leen fay. yàlla xam na li ma wax su ma xol laa bi kenn mënu leen fay mais juste rek. bu ñuy xoolee da des fois damay bëgg su ma xëyee ma gis ñu ne ah am na ko wax dara de ci message message bi évolué na yaa ngi dégg message bi évolué dans le sens et puis maa ngi koy maa koy tooñ keroog ci ci ci ci réunion COUS bi su ma gisee foog naa dem naa ci ci biir hmm. ci enquête yi ñu doon def hmm. mun naa ko tudd sax ci biir tuba hmm. boo gisee bu ñu gisee message yi nit yi dañuy wax au lieu ñu concentré wu ci président mi raxasu ñuy concentré wu ci lavabo bi mi raxasoo parce que lavabo bi tam dafa rafet. Mhm. macha allah xamuñu boobu au lieu ñu concentré wu ci liñ leen di wax ñu ngi xool ndax lii marbre la lii lii la lii lii la. xam nga boo tegee foofu loolu war nga teg ci loo xamante ni ki lay seetaan. dina ni lii gis naa ci sama bopp. moom la ñu def raxasu sate la rek ak ah, moo gënoon adapté mu ngi noonu ak saabu përngal bi nga xamante ni ñaar mhm. fukk lay jar. Mhm. nit ñëpp gis ci seen bopp. dégg wante waxuñu sax bu ñu def boobu mais nañu nañuy xoolaat. di xoolaat ñi leen di seetaan aussi pour ñu dugal concept yi ñuy def fokk ñu gis seen bopp ci mbir yaa mm-hmm. mais mais loolu moo ñu expliqué non warawuñu ñu ngi ñu ngi wax ñu ngi tàppe xalaat nañ ni incha allah. c'est vrai que am na <laughs> message boo xam ne nii <laughs> bi ñu ko njëkkee gis nee nañu est-ce que nit ñi moom la ñuy jëfee. Mm. ndax bu ñu gisee message yu ku mel ni ki Youssou Ndour parce que mën nañ ko wax. Mm. def ci message yu njëkk a gis mu raxasoo ci buntu këram soog a dugg. Mm. xam nga nit ñi dañ boo dugg see sa kër raxasul mais xëy na boo duggee ci kër gi léeg-léeg mën nga laal dara robinet bi ngay raxasoo sax mën nga ko laalal sa bopp mën nga faa bàyyi doomu jàngoro keneen ku ñëw ubbi mën na ko faa bàyyi donc vigilance boobu moo tax waruñoo fex sax mu dugg ci biir kër gi balaa ñoo dugg mais euh, Ndak Diop professeur Cheikh Ibrahima fi ma bëggoon ñu taxaw tuuti est-ce que du jàngoro bi ni mu dugg see ak ni ñu ko gisee muy law di ñëw mu mel ni kii bu la dalee gàcce la est-ce que loolu du barrière pour ñu def geste barrière yi ñun ci suñu communauté. ndax xëy na jàngoro joo xamante ni rus nga pour am ko pratiquement bu la dalee da nga koy nëbb. gis nañ ko fi gis nañ fi sax koo xam ne dal na ko mu saalit dawee xeli ba kanam fa ñu ko fa ñu ko ko waxee ba këram yàlla def sax mu wàll ko yeneen indi nit ce que loolu du barrière bi pour que ñu def gest barrière yi ma jox sëriñ bi ba pare wala <laughs> professeur <laughs> euh, loolu dëgg la Euh, gis nga jàngoro yëpp bu bu ci ànd ak stigma stigmatisation maanaam dafa mel ni ay kaddu yu ñaaw yu ngay teg ci ko am jàngoro bi hmm. nit ñi dañuy daw te ñu gën a daw rek ñu gën a mettre toute la société à risque donc stigma facteur de vulnérabilité la maanaam day yokk day yokk loofu nit ñi ci ci kanam jàngoro bi alors loolu am na ñaari considération benn bi jàngoro boo mënti gis lu koy régler mooy yërmande xolu yërmande nekk nañ ci concept yu bees yoo xam ne pour jàngoro yu virus yu ñëw di euh, laal àddina bi yëpp lenn moo ko mën a régler lenn moo xam ne su fi nekkul duñ ko mën a régler quelle que soit la technologie mooy empathie mooy xolu yërmande yëg Mm-hmm. lu sa kële lu keneen ki yëg dès l'instant où comme ni ko sama naata naatago bi wax ne ku nekk war na xalaat ne jàngoro bi mën na ko dal mm-hmm. bu boobaa loo xam ne bugguloo ñu teg la ko loo ko teg teneen d'autant plus que léegi fu ñu toll nii lii tax ñu daan jàngoro professeur est-ce que foofu ñaaw njort la ñaaw njort ci ne mën na maa daal ñaaw njort dañuy wax ni baax na mais ñu dafa mel ni ñu ci ëpp rafet njort lañ ci am ak xëy na naagu ne du ma dal au lieu ñu ne mën na maa dal ñu naan waaye noo man mënu maa dal. Mhm. léegi xam nga euh, li mu wax ni empathie xolu yërmande boobu yëg lu keneen ki yëg loolu moo mooy tax ngay jege suñu borom. Mhm. yëg nit ku nekk nattee ko ci sa bopp. ku nekk nga yëg ko sa bopp. Mhm. li ngay yëg man ma yëg ko loolu bañ a def lii du ma ma dal mënu ma dal naagu la te naagu amul benn culture boo xam ne nangu na ko wala amul benn religion bu ko nangu waaye am na leneen lu ñu ci teg jàngoro ji léegi pour régler ko pour arrêter chaine de transmission bi maanaam fexe ba du law. wallante bi wallante bi wallante bi dakk naka koy def yow da nga koy freiner ci sa niveau yow sa bopp yaa koy mhm. freiner. Mhm. c'est-à-dire que léegi defatuma dañuy changer paradigme dañuy changer euh, euh, kë ki euh, cin bu ngadd boobu ngay togg. Mhm. togg xalaat yi. dañ ko changer dañuy ne léegi. man gest barrière yi may def nii yépp ñu si ëpp du ma protéger keneen ki lay protéger keneen ki lay protéger léegi boo nee geste barrière bi du pour man pour keneen ki la ça veut dire que sa xol may na la egg na ci benn niveau boo xam ne li nga yéene sa bopp moom nga yéeneen keneen. Mm-hmm. alors léegi nga xam ne da ngay protéger kële moom la wolof tënk dina nit nitay garabam. Mm-hmm. yooyu yaay garabu ku feebar yaa koy faj. léegi bu ma nee bu ma nee tax bu ma toogee nii. ma ne damay raxas sama loxo droite bi sama loxo ndeyjoor bi fii la yëpp du ma mun raxas mbagg bi du ma raxas conc bi su ma nee damay raxas gauche bi tamit. Mhm. suma loxo gauche lii la yëpp loxo droite bi mooy raxas loxo gauche bi loxo gauche bi raxas droite cest dire que dañuy nekk ci benn relation boo xam ne man maa lay protéger yow nga protéger ma. Mhm. bu ñu commencé nag ci mag ñi ak kilifa yi kilifa bi kilifa yi ñoo ñuy ñaanal. waaye ñun taalibe yi ñun xale yi ñun ndaw ñi ñun ñoo koy protéger parce que xam nañ ne bu fi nekkul addi addi kër këri këri tas mhm. donc léegi bu ñu dugalee bu ñu dugalee concept boobu nga xam ne euh, euh, nit ki dafay protéger ki nekk ci wetam kooku protéger keneen ki kooku protéger ba ñu créer benn effet effet de mhm. de d'enseignement mhm. effet d'enseignement bu ñu wax noonu mooy mooy mooy créer euh, dynamique dynamique de groupe si biir dynamique de groupe boobu nga xam ne mbooloo mi ñooy liggéey ci biir ci ci biir groupe boobu yow ci ngay rëccee ci ngay rawee comme ni ko maam Abdou doom wax su gaal bi di suux bul xalaat sa mbuus bi nga dugal ci biir gaal bi da ngay xalaat ne naa sowee gaal bi yëpp parce que su ma sowee gaal bi yëpp man dinaa sowee sama mbuus bi sowee. Mhm. paradigme boobu du paradigme occidental paradigme suñu paradigme la. c'est-à-dire suñu suñu suñu manière de voir ci suñu biir culture laa ko tibbee dañ ko mën a tibbee lii alors que message yi dañuy répéter message yoo xam ne ñu ngi am bitim réew yoo xam ne yu ci ëpp message occidentaux yi la xalaataatuñu loolu pour seet ñun suñu culture yan élément culturel la ñuy mobiliser ci lañuy sukkandiku pour tabax yeneen message yoo xam ne nit ñi dañ ci mën a gis seen bopp léegi bu fekkee jë jëlee nga jëlee nga loolu nga ne affaire à part doxal suñu wax nañ ci lu bëri nga ne léegi euh, soreyante bi distanciation bi mm-hmm. xam nga sore du distance du ci distance bi sore ci xol bi la sore ci xol bi la mën nga nekk fii ak eh, eh, France wala Italie yooyu tànk yaa ngi sama xol doo sorewuloo. mais professeur fii li tax ñuy wax distance. mooy am njort. bu ñaaw ne bu ñu taxawee di wax. booy wax am na luy jóge ci yow. virus bi comme parce que noonu la ko scientifique yi waxee. du tëb maanaam diisul diis boo xam ne dana nekk ci jaww ji. maanaam distance su un mètre bi ñu wax. Mhm. lu génn ci yow. Mhm. peut-être bu ma la nekkee à de un mètre. Mhm. dana daanu ci suuf. loolu moo tax. waaw benn distance boobu la. nga ne mais distance boobu c'est une distance physique. c'est une distance physique. donc du distance sociale. te te boo souvent distance boobu du distance sociale. Mhm. c'est une distance physique. léegi distance physique le distance sociale bi mooy tax di nga ma sore te du ma du ma du ma duma ma du ma duma ci am ñaaw njort ci yow du ma du ma am du la ko seete dinaa comprendre nga bañ ma mhm. jege. Mhm. parce que distance sociale boobu ngay créer ak xolu yërmande boobu ngay expliquer ak li tax nga ngay wone ak li tax nga koy def pour aar pour aar ma man soo jëlee distance le dinaa nangu distance boobu nga jël mais dafay fekk nga xam ma nga ñu ñu échangé wu ñu ñu bokk gis-gis waaye boo ne yow distance baa ngi nii respecté wuloo ko da kii da nga dëgër bopp ak mel noonu du jàll. Mm-hmm. da ngay comprendre distance boobu le am na lu ko ëpp doole. li ko ëpp doole mooy distance sociale boobu nga xam ne distance su xol ak xol la mën nga ma sore mën naa la sore waaye ñu ñu connecté wu. am na am na ñuy euh, xam nga lu bari ñoo xam ne papa ni daan toog fii doom yi nekk France balaa muy waaj muy waaj a gaañu mu woo ko mu ñëw. parce que hmm. distance physique bi ce n'est pas le plus important. donc am na ay ay ay ci suñu culture yi nga gis euh, euh, koo xam ne lëlu ay lëlu ay ay ay maw ay ay ay ay ay ay wàññi am na ay concept yu bëri yoo xam ne ci suñu culture bi. dinañ mhm. comprendre que am na ay moment yoo xam ne nga jël distance bi du parce que da da nga xeeb nit ñi wala du parce que da nga bañ a jaxasoog ñoom déedéet am lu lu lu lu am na am na am na ay moment yoo xam ne boo ci tolloo pour sauver nit ñi lépp loo xam ne nit ñi tàmm nañ ko def te te defatuloo ko changé nañ ko habitude bi nga changé ko dina leen ko jaral ñu def ko. mais actuellement loolu jaralul ndax ndax Diop est ce que du loolu mooy problème bi cest à bu ñu mettre distance bi. bu ñu adopté concept distance sociale bi. comme mesure barrière. fii li ñuy gis mooy. boo nee nit sori ma mu yaakaar ni danga ko wax ni da ngaa feebar da may wàll. mais ba léegi assimilé guñu pour wëlbati ko dans le sens de bu ma la nee euh, sori ma mooy a ah, moytul man xaw ma lu nekk ci man bëgguma la ko wàll peut-être que bu demee woon noonu dana gën a yomb am déet xam nga di nga dégg ñuy euh, sociologue yi di wax lu bëri concept concept concept concept des fois sax nit ñi dañ naan concept lan la xam nga nit bu balaa mu lay déglu mbaa balaa mu lay topp dafay xam li mu wund bu xamul li mu wund du la topp bu bu ñu bu ñu bu ñu xamee ni que euh, euh, li ngay li distance bi ngay jël pour pour santeem la bu ko dugalee rek bu ko xasee inculqué rek parce que xam nga tamit euh, on est sur des millénaires des comportement yoo xam ne c'est des millénaires saafonte nuyoonte c'est une millénaire munoo ne nit ki xam nga ku ne loo loo bëgg sa bopp nit gën laa bëgg boppam kenn bëggul dee ci corona bi de kenn bëggul corona bi daal la te foofu lay ñëwee maa ngi koy expliquer léegi professeur man xam dafa am trois phases yoo xamante ni man moom laa jàngat ci ci ci corona bi dafa am première phase boo xamante ni histoire bu ne génn na déni bu ne génn na feebar bi amul yaa ngi dégg ku mm. ne créer nga sa histoire boobu phase romb nañ ko ñu dugg ci beneen deuxième phase boo xamante ni nit yi euh, en fait xooluñu ko bu baax mais ñu ngi créé réponse ci la ci la religieux yi génn na ngeen woor na ngeen saraxe yaa ngi dégg nit yi woor nañu saraxe religieux yi ni ngeen def solidarité solidarité boobu nag àgguñu ci réponse solidarité bi parce que jëluñu ko en fait euh, euh, jëluñu ko comme opportunité parce que bunt bu ubbeeku la woon nit ñi woor nañu saraxe nañu yaa ngi dégg mais solidarité bi desoon na te foofu levier la woon pour ñu jël ko parce que quoi qu'on dise on va s'adosser sur la religion troisième niveau bi ñu toll léegi te moom laa jàngat mooy àgg nañu foo xamante ni mooy on est invincible du ma dal feebar bi duma ma dal. Mhm. Sénégal yëpp boo ko xooloon tey ci biir ñi ci ëpp ñu ngi xaar miracle ci yàlla lay jóge gaa yàllaa fi dugal feebar bi dina ko fi génne. Mhm. ñu ci bëri ñu ngi ci ñu ngi ci moment boobu moo tax li ngay gis ci biti. nit ñi duñu topp yenn réglementaire nit yi duñ ko def bëgg nañu relax bëgg nañu bëgg nañu bëgguñu suivre mesure yi loolu mooy troisième niveau bi mooy bi nga xamante ni dem ba nga xam ni da nga invincible boo invincible nag munoo réfléchir comme quelquin boo xamante ni tey mën nga ne man damay sàmm feebar bi ba duma ko aar sama sama sama sama sama sama sama kenn sama mbokk walla te foofu la stigmatisation di dugg ndax dañu àgg foo xamante ni euh, li li li li sama prof di wax empathie mm-hmm. am na sax fi mu nekk nii ay chercheurs yoo xam ni ñu ngi koy bëgg a mesurer mais kenn àggagu ci kenn mënatu ko kenn mënu ko mesurer ba tey mooy empathie. empathie boobu dafay dal di jouer un rôle très important ci ni ñuy ni ñuy fexe parce que stigmatisation boobu bu gënee law mooy gën transmission bi di gën di law parce que ki ko am day làqatu. Mm-hmm. te bu làqatoo day daw fenn. jox ko feneen jox ko feneen parce que mu ngi xalaat bis bu ko ambulance bi di jël si këram ak nit yi taxaw am na ku ko wax fu gi maa ngi koy xool hmm. journal fan nii mu ne këram ba léegi sax mu ngi dund stigmatisation boobu hmm. stigmatisation bi mu ngi ñëwee ci niveau boobu léegi am na ay intervention yu nit yi di def am na nu ñuy def ba dindi stigmatisation boobu ñi ko ñi ko war a def c'est comme si li li sama prof di wax li li nit yi yor ci doole li nit yi yor ci engagement li nit yor ci empathie xajul ci corona mais dañu xamagul fan lañ ko war a laal bés bouton bi ba activer ko ba def ay mouvement de groupe ba def ay engagement foofu la jee ngeen quand même parce que yëf yi weer mu ngi fi weer ak lu teg mu ngi fi professeur bu ngeen ma nee bouton bi dañuy yor ba léegi waaw <laughs> non non xam nga euh, euh, bu doon sociologue yi ak anthropologue kese ñu am doole bi état bi am. <laughs> wala doole bi service yi am. xëy na di <laughs> demee noonu. <laughs> mais xam nga fii garab a koy faj. Ah. leneen li barrière la. Mm-hmm. mais li fi nekk mooy bu la duggee sociologue mënatu ci dara. entre mm. anthropologue mënatu ci dara bu la duggee moom. waa kër bu la feebar bi duggee. Ah. waa kër docteur ay pexe mi. waaw mooy mooy finalité mooy pexe mu mujj bi. mais. li tax ba léegi mënuñoo rompre chaîne bi. mënoon nañoo euh, comprendre sax nit ñi di ko jëfee mais li jaaxal nit ñi mooy. wax dëgg fa yàlla nit ñi mel ni dunduñu feebar bi te dafa am benn bu nar a dugg si. Mm-hmm. parce wëlbati nañ léegi moytu doomu jàngoro bi. Mm-hmm. yegg ci waa nu may dundee cest à comme tënk nañ lépp tënk nañ nit ñi ah wuti lu ma dundee sax mu may bëgg a të. Mm-hmm. ba ñu jëm ci étape dimbale nit ñi ak dund. te xam nga loolu ba léegi wax dëgg fa yàlla xamuñu naka la ñu mën a def ba groupe du am. te groupe la ñuy bañ. rassemblement la ñuy bañ. Sénégal fii jaxate jaxate yeeg wàddeen yeeg ñooñu fu ñu yëgee ni camion dund baa ngi ne gëm naa ni mënoo la ne teree dem wuti ko. loolu est-ce que bàyyi nañ ci xel. waaw loolu loolu du suñu domaine parce que ñun. du ñu état bi yoruñu pouvoir de ah, décision yooyu influence rek la ñu a xaaral rek rek la a am yaa ngi waaf léegi nag influence rek la ñu mën a am ci influence boobu à part li yaa ngi waaf non non non à part li nga wax ni may may ma rek may ma ma jox ndax ci ah. seen i tegtal comme ah. yéen a ngi ci comité bi ak yooyu di ci gëstu est-ce que lii ñu jëm réflexion bi mayoon na leen ngeen artu ne ah nañu moytu parce que ci xel yi xel yi sénégalais yi nii la bindoo. Hmm. bu ñu demee ci lii mën naa yàq li ñu def yëpp. waaw léegi ñun ñu ngi bind dañuy def terrain dem Touba dem feneen ak feneen bind ay rapport yónnee ko fu ñu ko war a yónnee léegi décision bi si boppam <laughs> ñun mënuñu tu ñu ñoo koy jël dañuy influencer dañuy daal expliquer daal ñun daal lii ak lii lañ tuddoo ci ci ci suñu gëstu yi waaye li nga wax si affaire yóbbu vivre sax baax na waaye xam nga gis nga lu nekk. soo buggee def nit ki sa nawle parce que egg nañ ci stade boo xam ne su ma la protéger yow nga protéger ma ay nawle lañ doo ma gën a gore du ma la gën a gore mhm. concept boobu mu ngi ci suñu culture bu fekkee concept boobu nag c'est central parce que loolu mooy tax ñu ñu arrêté chaîne de transmission man ma yor ko ma fa def lépp sama kam ay kattan pour mu bañ yegg si yow bu ñëpp defee noonu pendant 15 jours 14 mhm. jours 15 jours 21 pare nañ chaîne de transmission su ma takkee sa masque nga takk sa masque takk sa masque dans tous les espaces publics du am transmi dootul amati transmission ci biir espace privé bi. Mhm. waaw donc léegi ma yëg la ñu établir consensus boobule sa relation ñu ñu fasante coloré boobu relation nawle boobule il faut que ma respecter donc vivre yooyu même boo koy indi nan nga koy indee ci sutura. nan nga koy indee te doo woon nit ki ne yow yi am na foo xam ne yaa ko fa génne wala yaa koy dimbale wala yaa koy sarax wala yu mel noonu naka nga koy jox na koy jox nag koy indee tout en préservant la dignité de la personne loolu bokk na ci lu tax ñu am stigma su fekkee malaat bi danga ko gis ni malaat kese gisuloo ko comme un être humain boo xam ne am na culture am am na valeur am am na dignité am am na xalaatam kooku dafay daw dina la daw waa këram dinañ la daw bu fekkee waa koñam ñu ngi koy daw te ñoom teguñu seen bopp ci malade bi dinañ am situation yi mel noonu alors loolu moo tax ma ne la léegi ñu ngi si boo xoolee situation bi nu mu demee président de la république état bi intervenir na état bi moo moo moo uuf askan bi lépp waaye ku ne askan ani état yaa ngi ci benn modèle patrilinéaire patriarcal foo xam ne baay bi moo mooy mooy jore autorité bi état bi dafay incarner kër baay waaye képp ku am kër baay am nga kër ndey kër ndey mooy famille yi am na benn transmission boo xam ne ci espace public yi la te bu si yàlla àndee bu fekkee ñëpp takk nañ masque ñëpp takk masque mooy mooy képp ku dem ci benn espace public yaa ngee confine sa bopp bu fekkee ñëpp a ngi confiner seen bopp ça veut dire que virus bi la ñuy confiner waruñu di comme ni ko sama naatango bi waxee léegi waruñu confonder raxas sa loxo ak raxas virus bi mhm. donc waruñu confonder confiner virus bi ak confiner nit ñi ça fait deux choses différentes ça veut dire que ku nekk dafay ne man sam bopp maa ngi confiner virus bi ci espace public bi ça veut dire xaw ma fan la état bi di jaar naka lay mobiliser loolu naka lay mobiliser armée ak yeneen service yi. pour mais nga may ma yegg ah, ko ah. léegi loolu espace public bi. Hmm. nga xam ne espace boobu la état bi moo ko yore état bi des na encore nekkagul en situation d'urgence balaa ngay indi vivre am na lu jiitu loolu balaa ngay xalaat confiné ay dëkk am na lu jiitu loolu te am na ay réew yu bëri yoo xam ne gagné nañ voilà gagné nañ corona euh, ay Corée ak yu mel yoo xam ne musuñu confiné seen seen seen dëkk benn. ñaar beneen partie boo xam ne ñu si ëpp contamination bi fa la nekk ci biir yi la ci biir famille kan moo nekk en première ligne mooy jigéen yi mooy soxna yi mooy yaay yi mooy sœur yi ñooñu ba léegi yëngalaguñu doole boo xam ne mën na leen jigéen yi bu ñu ci jógee ba jël leadership ki eh, eh, corona du fi xëcc mais ba léegi connection boobu la pour may jigéen ñi jox jigéen ñi pouvoir boo xam ne dinañ jël leadership bi dinañ gis benn ay visage féminin yoo xam ne ñooy diriger xeex bi parce que suñu société. Mhm. tout ce qui est santé jigéen ñi ñoo koy gérer au niveau domestique ñoom ñooy travailleurs de première ligne la ligne de front lu ñuy xalaat ne du du du hôpital la ligne de front bi nekk ligne de front baa ngi ci kër yi. Mhm. du du médecins yi ñoo nekk les travailleurs de première ligne. ñoom ñoo ñoo nekk les soldats en en première ligne c'est les femmes ñoo nekk des soldats en première ligne donc changement conceptuel boobu la changement xalaat xalaatin manière bi ñuy xalaatinoon li loolu la ñu soxla pour joxe benn modèle boo xam ne Afrique dina wanee ne parce que Afrique mën na wanee ne mën na ubbi benn yoon boo xam ne adduna bi na ci jaar parce que Afrique accumulé na maanaam tënk na développé na pendant ay millénaires résilience et corona du du du bu fi jëkk depuis téeméeri junni lu ëpp téeméer ak euh, fukki junniy at boo xam ne homo sapiens xeetu nit bu am xel homo sapiens sapiens si ngi am ci àddina homo sapiens sapiens boobu mi ngi woon Afrique ba mu mët lu ëpp téeméeri junni jonkoonte façon virus bu nekk développé na société am développé na culture am développé na anticorps am na ay ay aspect ay aspect de comportement yu dul jeex. Hmm. yoo xam ne moo tax bi Afrique doon egg si fii donc loolu leçon yooyu ak xam-xam boobu ñu tënk ci biir xeet yi ak ci biir askan yi ak ci biir société yi xam-xam boobu la société sociologue yi di di di di di di gëstuwaat di di di jàppaat pour dugalaat ko ci ni ñuy xeexee corona donc lu mel noonu. ah suñ continuer dañuy egg ci ay aspects yoo xam ne c'est très philosophique waaye euh, euh, euh, philosophie boobu mooy lan mooy waxtaan bi des na li dañuy wax wolof may wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan a am. Mm-hmm. waaw ñàkk waxtaan bi des na. waxtaan nag dafay dafay fekk comme ni nga def ni nga toog ma toog kii toog waxtaan boo bu bu gën ci waxtaan yi ñu wàccan mm-hmm. loolu li ma la bëgg wax sax image la bu fekkee dangay nga jóg taxaw man ma toog sëgg. Mm-hmm. ngay nga may wax di ma jox ay ordre xëy na loolu du doon waxtaan. image boobu la ñu war a dindi. jusqu'à présent ñu ngi joxe ay instructions nit ñi comme bu fekkee dañu leen di jàngal dara ñoom xamuñu. te ba léegi dunduñu ko. ba léegi waaw loolu moo tax ba léegi dunduñu ko mais professeur gis nga mm-hmm. sa solution bi nga mujjee. Mm-hmm. ne ci la ñu war a dem maanaam ku nekk sol masque. Mm-hmm. foofu est-ce que. adapté na ak suñu réalité damay jox exemple bu gàtt ca ba muy teel a yëf yi yëf di tàmbali am suñu benn jigéen jaa ramatulaay dafa teeloon di bokk ci ñuy appliquer mesures yi mun ne day sol masque dugg ci kaar yi. dañu koy xool comme si moom moo amee doomu jàngoro ji. loolu ci suñuy réalité la aussi. cest moom mu ngi def mesure bi nga xam ne mooy protéger ñëpp di protéger boppam. Ah. waaye dañu koy xool comme si stigmatiser nañ ko moom. finalement ah. mu mujj ah. def comme ñëpp. mujj gi pour passer inaperçu. parce elle supporte pas le poids de la société ñu koy xool bu duggee ci car bi sol masque finalement du sol masque est-ce que euh, kon problème masque boobu aussi yow dafa mel da nga copier rek euh, solution yoo xam ne mooy mooy tàmbali di génn euh, dans le monde occidental ak yooyu ñu bëgg a génn ci confinement bi à travers le port du masque mais est-ce que adapté na waaw mais amul loo xam ne loo munti wax rek nga ne adapté na adapté du situation fixe adapté day changé mm-hmm. adapté day changé toujours ko kaw ngay wax noonu boo fekkoon dëgg na ci bis boo xam ne ñëpp tàkk nañ masque yow mi takkul masque. yow lañ yow lañ yow lañ yow lañ sigwet mais lu ñu def ba mu dugg ci xel yi. waaw li lu ñu doon dem pour dugg ci xel yi. Mm-hmm. benn mooy masque bi may takk. du pour yow du pour du pour protéger sama bopp pour yow lay protéger bu boobaa bu fekkee yow takk nga masque man takkuma masque ça veut dire que yow yaa ngi may yaa ngi may protéger yaa ngi may protéger te man fay fay fay la mu bor bi esprit boobu nga la ñu war a dugal ci suñu population suñu dugalee esprit boobu ci population man doo ma gën a gore soo takkee rek ma ma ma ma c'est-à-dire cest ah, ndax ma yokkal la rek nga boole ko tontuwaale ah. ñu dugal ci xelu nit ñi ni ah. xëy na kii deful geste barrière bi. Mm-hmm. Mm-hmm. kooku moo lay sànq. bu ngoo bu demee ba foofu je pense que nit ñi ku nekk dina am kersawu. sànq sànq sa moroom dëgg la mm-hmm. moo tax man la mais dafay ànd ak deux xam nga boo tegee mesure tamit dangay dimbali nit yi pour ñu def ko. pour ñu def ko mooy masque bi dafa war a disponible. xam nga dem di traité di xam nga bu nu amoon yàlla bu nu fa àgg ñaanuma ko France nga am deux mille douze mille xaw ma cent mille di traité. bu doon mënoon na def prévention ba du àgg foofu dina jël li mu am yëpp def ko ci prévention. boo xoolee boo xamee ni mesure bi te te mesure euh, ñu takk masque bi sax dafa am ñaari importance yu muy def mooy nit yi di bàyyi seen xel ni ñu ngi ci épidémie daf leen di koy rappeler. yaa ngi dégg et puis deuxièmement mun na arrêter transmission bi mais nag bu boobaa mesure yi day gaaw ñi amul man mën naa am masque. du ñëpp mën a am masque. balaa ñoo jeexal kay suñu masque ñun ñëpp ma wax ko parce que souvent nit ñi dañuy wax waaye nañ ci ñoo jeexal ñu ñëpp ñu sol suñu masque mu ngi noonu léegi hmm. boo defee loolu da ngay kay hmm. gaaw xam nga tamit épidémie dafa laaj gaaw boo gaawulee nit yi ni ah lii de amul boo gaawulee rek nit yi ni dañuy wax rek mais amul moo tax boo te boo nekkee ci épidémie yaay gën a gaaw sax li ngay génne. Mhm. mooy balaa ngay dem ba wax masque sax masque yi taxaw nañu mooy fépp place publique. Mhm. boo xamante ni nit yaa nga fay jaar war nga faa def teg koo xamante ni mu ngeeg mask yi boo ñëwee bu ma la gisulee ni la jëlal masque bi. xam nga masque yi fi mu nekk nii ñu ngi wax am na yoo xam ne mën nga ko fóot. Mhm. te ñu ngi développé ni mën na mën na en tout cas mën na protéger ba à certain niveau baax na waaw ba baax na ci loolu waaw ñu ngi koy wax mais boo taxawoon foo xamante ni nga taxaw euh, ci ci ci gaar bi xam nga la dalay leer ni fii nit yi dinañ fi jaar nga ne am masque bi takkal xam nga kooku bu àggee ba ci biir oto ba fekk ñëpp takk masque yow takkoo masque di nga wàccaat hmm. te kenn du la ko wax ndax di nga rus hmm. mais loolu tamit ay mesures yooyu def en place la ba pare ki takk masque mu ngi lay wan ni la maa ngi épidémie message la. Mhm. xam nga des fois message du li ngay li nekk ci télé bi rek ak li nekk ci rajo bi. Mhm. man ci boppam damay porte message. su ma takkee masque dugg ci oto bi ci ci biir kaar bi ñëpp takk masque yow mi duggul ñii ñu ngi lay jox message bu dee xam nga sa bopp di nga wàccaat dem wuti message gis nga yooyu les micro initiative la les micro réponses la dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko defaragul gis nga le fait que rek nga jënd nous on l'a fait des fois dañuy tester ay micro réponse mhm. def nañ ko def nañ ko Touba. Ah nga xamante ne dañuy ñëw fenn rek teg fa ay kit ay kit de lavage des mains expliquer bàyyi fa kenn muy expliquer bi ñu demee ba une semaine ñëw nañu fekk ñi mënul jënd kit bi mooy ta kii beeg bool beeg kii bi mhm. ñaari bidon lañu jël bidon bi dañ ci dañ koy bënn mhm. bidon bi nekk ci suuf am nañu saabu du raxasu rek la ñu wax fekk nañu koñ bi nga xamante ni ëpp na pratiquement ay cinquante maison yëpp fekk nañu fa kit yi xam nga koy teste mm-hmm. c'est des micro réponses yoo xamante ni boo ko testé bu jàllee nga gaaw appliquer mesure bi port bu masque tamit c'est la même chose gis nga boo demee ba nga xamante ni nit ki nga nit ki nga jege ci marché ak ci feneen takkoo masque yow da ngay dem ba yow yaay nekk la risée xam nga ci mhm. wolof mooy yow da nga am kersa mhm. loolu nag su leen déggee yéen ñaar ñëpp mhm. sa di solution bi nga doon wax ni bouton bi la ñuy wër bouton bi mu ngi nekk ci mu ñu fexe ba kii am kersa suba mooy ki deful li ñu ko digal bu ñu defee loolu rek defe naa ni xëy na nit ñi danañ commencé ah boo génnee ci mbooloo mi ah. nga gis ni yow rek yaa doxalul li nga xam ne ni moom la ñu digle defe naa di nga changer comportement ah, kersa gi ñu fex xam nga ci langage policier yi souvent bu ñu defee opération coup de poing dañ naan euh, on va la peur dans le camp des voyous des bandits ah. fii tamit fexe ba kersa gi nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doxalul li ñuy wax ñi nga xam ne ñoo doxalul mu ngoog yow <laughs> <laughs> na <laughs> bu doom na léegi nag loolu mooy hmm? concept dama ko tiré ci seen réflexion léegi loolu nag bouton boobule nga xam ne yow yaa ko génne <laughs> <laughs> yow yow mi yaa ko génne bouton boobu xam ne léegi yaa ko génne mhm. il faut que ñëpp jàpp ci à commencer par l'état état bi borom doole yi kilifa yi leader yi ñëpp war a eh, eh, développer exemple bu concret exemple bu xam nga marché yi mu ngi ubbeeku ba léegi mhm. fexe ba ki ñëw ci marché bi. vraiment bu wone mu feeñ ci moom ni. mu ngi def geste barrière yi. voilà boo xawee jege sax. Ah. boo gisee ñëpp sorante xay na di nga xoolaat sa bopp daal di arrièreaat tuuti. Mm-hmm. boo solul masque si ñëw ci marché bi gis genn wàll gi yëpp sol masque wala ñëpp sol masque xëy na di nga delluwaat kër gi sa wuti ko. xëy na voilà effectivement. léegi nag am na leneen lu ñu ci mën a uh-huh. xam nga masque yi nañ ba léegi pour espace public yi la. Uh-huh. léegi da koy connecté da nga koy jokkoo ak loo yi li ñuy def si biir kër yi. te loolu jotuñu ci waxtaan lu bari ah docteur Diop am na ci biir kër yi ci biir kër yi parce que dañoo jàppoon rek fexe ba bu mu fa dugg la. voilà léegi nag nañu fexe ba ñu ne euh, kenn xeetu jàngoro bi mën na nekk ci kër gu nekk léegi bu fekkee xalaatee nañ noonu. lan la ñuy def benn koo xam ne dafa am ay dafa sentir symptômes yi. mu ne dama koy damay gaaw a takk sama masque pour mu bañ a walla sama waa kër. Mhm. kon newul ne damay takk masque pour protéger sama bopp. Mhm. te pour sama kooku di takk koo xam ne sentir na symptôme yi am jabaram ak yooyu yëg nañ ko ñu naxanteeg moom pour convaincre ko pour mu fas jom takk masque bi. Mm-hmm. am nay fibre yoo xam ne ñu wax ak moom dina takk masque bi moom si boppam mu def nga ne raxas loxo moom itamit jigéen ñi. éducation à la santé jigéen ñi ñoo ñooy ñooy développé éducation à la santé mhm. bu ñëwee si kër wala wala bëgg a lekk dañu leen ne raxas subaa ngi ni jigéen na lay wax raxas raxas subaa mhm. donc rôle boobu jigéen ñi war a def ci biir famille loolu tamit état bi ak ñi am moyen war nañ ci liggéey ensuite que eh, eh, eh, solidarité bi am diggante jigéen xam naa. Ah, ah, ah, mhm. ndax amul temps développé loolu yëpp waaye tamit loolu tamit. solidarité bi am diggante jigéen tamit relais communautaire yi nga xam ne war nañ leen di dugal parce que waxtu wi moo ngi xaw a xat. intéressant na trop. Euh, euh, dañu gis ni dugaluñu woon bu baax vraiment relais communautaire yi. c'est vrai que tudd nañ fi bàjjanu gox yi ci yenn yeeg yooyu mais demuñu ba ci. biir fi nga xam ne fa la nit ñi dund ci quartier yi chef de quartier yi notable yi ak yooyu mm. mais mm. bi distribuer dund gi ñëwee mm. gis nga ni ñooñu lañ ko bëgg a wékk parce que jàpp nañ ni chef de quartier ñoom ñoo gën a xam ñi soxla dund hmm. ñi néew di doole comme ñooy dund ak ñoom hmm. mais loolu sax gis nga ko warante bi ci am am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ni chef de quartier bi xamu leen parce que seen yitte yëpp ci marché bi la ci quartier bi lañ dëkk mais hmm. sept ba vingt heures ñu ngi ci marché bi donc bu ñu laajee chef de quartier bi ñan ñoo soxla xàmmewu leen sax ci koñ bi dañu leen mun a jox mais lu tax ci concept ndimbal gi. ñu dugal ci chef de quartier yi. bàjjenu gox yi ak ñi xam dëgg te ba fi mu toll dafa mel ni ci xeex bi impliqué wu ñu bàjjenu gox yi yaay yi nijaayi gox yi notable yi ci quartier yi pour ñu mm. gën a mën a wax ak nit ñi. Mm-hmm. est-ce que foofu sooxee na wala. Mm-hmm. Adja waaw. <laughs> waaw ñu wax ni Touba bi li tax muy dellu si parce que da ngeen fa demoon. ci cadre enquête voilà. ci cadre réponse bi. ok réponse bi nii nii. li nga wax ne gis nga euh, euh, c'est extraordinaire boo wàccee ci suuf. li li nekk ci ay association li nekk ci ay leader rële ay relais te li ci li li Sénégal xamagul en tout cas ñi jiite li ñu xamagul mooy ñoom ñëpp bëgg a def ci épidémie bi mhm. dafa mel ni comme si xam nga ñëpp nee nañu balaa la mhm. te boo xalee boo boo toppee Sénégal bu nee balaa lu muy wut mu ngi wut ngërëm mhm. mooy def ci def sa alal wala def sa doole wala def fi nga fi nga toll ci épidémie bi day dem ba yow xëy na sax xalaat nga ni moo lay protéger. Mhm. ci ci épidémie bi. Mhm. boo gisee euh, femmes yi ñu liggéeyal Touba. Mhm. koo ci gis ku ne daayira bi mu yor ëpp na 1000 personnes boo xam ni bu jëlee téléphone am léegi envoyé message bi ci WhatsApp ñoom ñépp jot nañ ko à la première seconde. te li mu def li mu wax ñoom ànd nañ ci. parce que créer na validation valide na leadership boobu valide na aussi la fait que ñoom bu waxee xam na ni du wax lu leen lor. Mhm. mais appuyé wuñ ci. xam nga kooku background bi mu yor on se souvient que ñooñu bu ñu leen daan yóbbu rajo ci Touba. à la dañ nit ñi dañuy woote ba du ñu mun def émission bi. Mm-hmm. parce que bu ñuy dem ñëpp a ngi taxaw di leen di déglu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais kooku capital social la ku nekk bëgg ko woon maa ngi lay déglu mu ngi kooku capital humain la amul bu ko gën a bu ko gën a. Mm. màgg ci épidémie. parce que kooku yow fi ngay toog une semaine pour jot cent personnes moom deux minutes lay toog jot mille personnes. xam nga kooku réseau boobu. boo ko jëlee. ci ah, ci ci ci dëkk boo ko jël bu dee ñaar ñett ñeent en ah, une semaine yow. jot nga mais cas spécifique Touba nga wax est-ce que loolu am na fépp. am na fépp d'accord peut-être Dakar mooy gën a wax y a des formes hmm. différentes. Ah, hmm. Dakar peut-être Touba mooy gën a homogène. Hmm. plus ou moins. Mm-hmm. am na yoo xamante ni ñooy gën a homogène. dinañu mu ngi noonu mais am na fu mu bëri am na fu mu bëri. li ngay wax nii li ngay wax nii même euh, vivre bi ñuy bi ñuy. mais dëkku taax nga xam ni fii Dakar nga xam ni ñi dañ bokk immeuble sax du ñu. mu ngi noonu léeg-léeg ñu rombante duñ nuyonte. xamante wuñu waaw loolu am na fooy jaar ci pour am ku la déggal. loolu am na moo tax message yi da ngeen koy diversifier. am na ñoo xam ne ñu koy jiñ xanaa waa waaw ah, ñun moom yaatal rek. <laughs> message da koy diversifier am na ay yoo xam ne. di nga di nga di nga cibler individu bi nit ki. Mhm. am na yoo xam ne di nga cibler bi. yenn yi di nga cibler leader communautaire yi comme ñu mu wax ni mhm. ah di nga cibler di ngay diversifier. léegi nag bu ñu dafa mel ni corona da nga koy attaqué ci pax boor bu nekk. Mhm. boo def boo ko attaqué ci boor bu nekk di nga mën a def jonction. jonction boobule. concept ban concept moo ko yëngal ci loolu ngay ci ngay ci ngay jëkk travail maintenant am na beneen affaire tamit booy joxe ay vivre yooyu mhm. gis nga soo jëlee kaaw ébola di nga ko gis wala ci jàngoro bi dañ koy politiser le danger politisation mhm. ak danger économie boo xam ne dafay doon une économie parallèle les gens tirent nga xam ne dañ ciy tirer seen intérêt euh, danger yooyu da ngay écarter parce que boo ko mhm. écarté wul dafay tax boo waxee dara nit ñi duñ la gëm duñ la déglu donc ñu ngi delluwaat encore ci conceptu ngor ak conceptu empathie naka ngay dimbali nit te doo ci feeñ mhm. mu doon beneen beneen beneen beneen défi boo xam ne société bu nekk daf ko war a régler naka lay dimbalee ñoo xam ne ñi ma jege waaye am nañu problème mu masque am nañu problème ndox am nañu problème lii wala am nañu problème communication naka laa leen dimbale te man suma suma tudd ci fee. duñ ko politiser mm. naka la ñuy doxee ak loxo droite te loxo gauche du du yëg ne loxo droite joxe na. je crois que suñu delluwaatee ci concept yooyu ne mi suñ suñ société suñ culture depuis longtemps mi ngi ci suñu croyance religieuse suñu mënoon delluwaat ci concept yooyu la dinañu mën a fexe ba doole boobu may wax ne war na génn. doole bi mun génn eh, ñu ñu daan corona ci li mu gën a professeur Cheikh Ibrahima socio xam nga dañu ne feebar la. Ah. pourtant waa Kër Docteur seen euh, tegtal yëpp. dafa jëm ci askan wi dimbali leen ñu. est du loolu aussi bokkul ci difficulté c'est-à-dire ñu ne feebar la ba pare. <laughs> ñi koy faj di ñaan askan wi ñu dimbali leen ñun ci suñu conception. <laughs> est-ce que loolu bokkul ci difficulté bi. Euh, waaw parce que xam nga euh, boo nee feebar la yaa ngi xool Kër Docteur. Hmm. waaye boo ne problème de santé la. Ah, problème de santé hmm. la. nga xam ne wérgu yaram la. santé publique surtout santé publique mm. wérgu yaram la. wérgu yaram société bi yëpp ngay xool. mais concept yooyu dañ ko traduire ñun ci suñu ci suñu ci parce que yaa ngi nii ah. santé publique sax ngay wax. waaw <laughs> damay damay ne wër <laughs> dëgg la waaye dañu ne xoolal dañu war a dafa am benn xam nga kër docteur ñuy jox chiffre bi xam nga yow yow sax yaa ngi tàmbali ci ay chiffres. Mm-hmm. chiffres yi baax na waaye du lu ëpp solo lu ëpp solo mooy vulnérabilité vulnérabilité. mën nañ wax ne mooy wër mhm. wër pëng wër ni wër dërëm mhm. wër koj mhm. wër ni dërëm ça veut dire que bu ñu la jamee dala sax du la dal tul société bi dafay dafay fexe dañuy fexe ba société bi tul maanaam chiffre bi feeñ na fii walla feeñ na fële c'est pas important mais tul est-ce que du indi est-ce que tul bu du indi naagu. jàpp ni tul nga ko déedéet xaaral rek. tul mm. beneen beneen sens laa koy jël. d'accord doxuma tul individuel tul société bi laa. d'accord mm. cest à que chiffre bi bu génnee Louga ñu ne ah Louga am na problème Kolda de moom ci génnagul. Mm. waa waa Kolda mën nañ naagu mais boo nee vulnérabilité bi tax mu am Louga mi ngi Kolda dañuy fexe ba société bi yëpp am invulnérabilité c'est-à-dire dëgër au point que bu bu bu daloon sa kaw sax. bu daloon ci société bi société dina am nu mu ko gérer donc problème mu vulnérabilité boobule concept boobule nga xam ne dañuy fexe ba société bi tul mm-hmm. naka la ñuy fexe ba société bi ñaar ñoom mm-hmm. benn bi mooy tul sur le plan biologique cest à nan ngay arreté transmission bi mm-hmm. euh, ba nit ñi développer ay anticorps ba euh, épidémie bi coronavirus bi dem parce que virus bi na dem <laughs> tôt ou tard virus bi na dem problème bi mooy temps bi mu fi def. dañu war a fexe ba virus bi. virus bi da ngaa dafa dox si dox si dox si yitte rek bu yitteem jeexee mu dem. loolu jëlee ko fi déedéet déedéet virus ñaari yëf la. mun na yàgg dina dem dafa mel ni da nga jàpp ni dafa dox si yitte rek bu yitte bu waxtu jeexee mu dina dem te te dina dem parce que nit ñi ci diggante bi. dinañ développé ay anticorps yoo xam ni virus bi du mën a yàq du du du mën toog virus épidémie yëpp dañuy dem amul épidémie bu bu buy buy. des dégâts la ñuy bañ. benn dégâts yi mhm. ak durée bi dañu war a wax ni yàggoo yàggoo yàqoo <laughs> mu yàq tuuti te du yàgg yàgg. fàttali nit ñi. fàttali parce que baax na. Mhm. jamonoy pest bu ñu la yóbbu na cinquante millions yu doomu aadama. xëy na jamono moo dox tey ba science bi moderne. société yi moderne ba xëy na. faat cinquante millions doomu aadama tey ci àdduna bi dana jafe ndax gis nga ko mhm. parce que coronavirus bi reyagul lu cinquante mille nit. mais li mu tënkagum ci àddina conséquence économique conséquence sociale yi conséquence li ñu wër yëpp def naa ni romb na buñ ko doon mesurer nombre de bakkan yi nga xam ne mënoon na te loolu moo xëy na loolu la ñu war a gën a bàyyi xel mën na fi indi jafe-jafe yu ëpp mm. lor gi muy indi ci ay bakkan doomu aadama rek yi muy faat gis nga peste boobu ngay wax mm-hmm. dafa am ay xeetu pest yu bëri yoo xam ne du ñu demee ba à un moment donné peste bu gën a grave peste bubonique moom moo ci mm-hmm. grippe espagnole boobu defoon cinquante million mhm. de morts. Mhm. mais balaa loolu amoon na yeneen grippe. Mhm. virus bi di wut doole di wut doole bi egg ci foofu. léegi nii soo comparé SARS ak MARS ak yeneen virus corona yoo xam ne. ak bii bi moo ëpp doole. lan moo ñu wax ni beneen beneen vague épidémique buy ñëw du ëpp doole bi loolu mën na nekk parce que virus yi dañu course virus yi dañuy changé wu virus yi dañuy adapté wu. virus dañuy def seen stratégie dafa mel ni dañuy def seen stratégie ñu mëngale ko bu nit ñi nit virus yi dañuy xeex ak nit ñi donc nii ni ñuy xeexee nii ak virusu corona suba gannaaw suba ma ko yàlla ñaanatuma ko yàlla beneen virus bu xeetu corona mën na dellu siwaat bu boobaa tul boobu lay wax naka ngay organiser société bi ba mu tul ba xam ne beneen virus bu ñëwee dinañ ko mën a dinañ ko mën a dinañ mën a jaa jaamaarloo moom loolu ñaar benn mooy li ma la wax ni ndax nit ñi am ay seen yaram am doole. am ay hmm. anticorps yoo xam ne mën na mën nañu kii virus bi ñaar comportement yi changé. Hmm. mooy li ñu doon wax sànq bi. Hmm. naka la société bi di créer ay culture yu bees. yoo xam ne dañu amee comportement yoo xam ni mu doon corona mu doon zika mu doon yeneen xeetu virus saa yu ñëwee rek dañ fekk nit ñu ñoo pare nañ <laughs> professeur dafa mel ni. am nga ñaar <laughs> def naa temps yi dafa dafa dafa fréquenter médecin yi de trop. <laughs> déedéet ah, xaar ma xaar ma dolli la ci ah, rek li ma la dolli ci tuuti c'est que. anthropologue mais c'est parce que dafa wane ni yéen a ko bokk non non anthropologue yi sax am na branche anthropologie médicale. Ah. ak anthropologie physique nga xam ne ñun. laal nañ tuuti ci santé publique laal nañ tuuti ci médecine. <laughs> waaye ni ñu koy xoolee <laughs> ak ni ñu ni ñu koy analyser bokk ak ni ko médecin yi di analyser. et puis li nga li nga wax léegi waaw waxtu fi mu toll nii. <laughs> presque wéy na. mais li nga wax léegi. feebar. Mhm. feebar. Mhm. moo li nga wax ne euh, xëy na médecin yi fi mu nekk nii ñu ngi ñaan euh, euh, population bi ñu jàppale leen. Mhm. moo moo dañu ràññee ñaari yëf. feebar ak wér-gu-yaram. bokk. feebar bi ñoom yàlla may na leen ci xarañ nañ ci. Mhm. boo feebaree ñoom mën nañ laa jël en charge. Mhm. mais ki feebaragul ñoom xamuñ xamuñu science seen science àggul foofu. Mhm. ñi feebaragul nii dara dalu leen ñoom amaguñ ci science. science boobu nag. Ah. mooy li xëy na moom la ñuy tëjee mooy il faut ñu toll foo xamante ni démb dama laaj sama professeur ma ne ko waa man damay dégg Caire 86. man xaw ma ker 86 mais biñ bu may nettali. dynamique gu yi. Mhm. naka la nit yi par effort individuel sans sans mobilisation la ñu génne autour de la nation ñu cotiser pour renforcer seen équipe. ndax waaye fekkee nga 2002. dynamique gu 2002 bi Sénégal. <laughs> man bu 86 sax moo ma yéem parce que dañ ne ku ne joxe nga or. <laughs> xam nga xam nga bu ñu demee ba jigéen ñi génne or. cotiser parce que en fait li ma li ma yéem ci loolu mooy dynamique boobu. ah nit ñi cotiser woon nañu. waa c'est vrai pour campagne bi. mu ngoog mais li ma li ma li ma li ma li ma xaar ak te xam naa ci loolu la ñuy jëm tamit. Hmm. naka force yi nekk. Hmm. ci suuf. naka lañ leen di activer rapidement pour ñu jël l'épidémie en en en en marche. Mm-hmm. naka la solidarité yi di commencer xam nga sëriñ ñi wax nañ ko. wax nañu saraxe leen ñaan leen solidarité. Mm-hmm. solidarité boobu nag excès guñu ci solidarité boobu. Mm-hmm. solidarité boobu foog ñu activer ko. ba nga xamante ni ñëpp nekk ay acteurs. ñëpp daan corona. de ce fait ak foo mën di nekk au niveau communautaire niveau régional ak niveau boo mën di nekk li ngay mën di def pour nit yi génn seen solution bopp koñ bi ma nekk boo dugg boo boo takkul masque doo dugg ci ci biir ci biir ci biir euh, marché bi su ñu nekkee ci ci supermarché bi doo dugg sans marche boo duggee fii doo raxasu naka lañu def euh, effet d'entraînement boobu mm-hmm. comme comment on va créer l'effet d'entraînement l'effet de l'effet de mimétisme mm-hmm. man loolu foog naa euh, fexe ba daal fexe ba daal kersa gi nekk ci ñi ko doxalul voilà ñi koy doxal ñoom waruñ ci am kersa ñoom ñu ngi aar askan wi di aar seen bopp ku sol masque xamal ni yaa ngi aar askan wi ku raxasu ku set kuy moytu dem ci public te raxasu comme nii nga ko waxoon ci njëlbeen ñëw fenn di dugg ci benn centre commercial wala yu am na bu nekk fee ci corniche bi eh, histoire bi dégg nañ ko waa ji ñëw ñu ne ko raxasul mu ne non set naa fekk na xamul ni la koy wax pour mu raxasu du lu nit di gis du màndarga buy feeñ ci loxo mën nga raxasoog saabu waaye am na foojaar ba teg fa loxo yóbbaale nga ko te mun nga koo jox nit ñi te message évolué nag. ñu leen di gërëm vraiment <laughs> jotaay bi c'est vrai docteur yee ko gën a moom mais aussi dañuy waxtaan ci loo xam ne nii Sénégalu ëllëg la. bu fi jàngoro ji jógee. naka la ñuy def parce que jàngoro ji mënoon naa def Sénégal tëju. ba diggante jëflante beeg bitim réew dootul nekk ah. gis nañu fii ci suñ jotaay yi passé hmm. ni ndekete Sénégal li ñuy bay ci mbayum dër bi ni ñu koy waxee horticulture hmm. soble hmm. pomme de terre ak yooyu ndekete li ñuy bay mat na ñetti yoon ak li ñuy dundee li tax mënuñu koo matal mooy xëy na am na lu ñu matalul ci conservation bi ak yooyu yooyu yëpp bu ñu ci yëgee xëy na bu ñu réfléchir réew mi dina jëm kanam ceeb bi ndekete matal nañu ko bu matul it mën nañu koo matal parce que terre yi nga xam ne moom la ñuy def ci vallée bi moitié bi sax tàmbalee guñu koo doxal donc yooyu yëpp ah. fi dem wàllu technologie de l'information ne am na fi loo xamante ni buñ ko mataloon jàngu xale yi tey hmm. mën nañu toog ci kër yi di continuer di jàng parce que tey mel na ni que dañ leen libéré rek bon plateforme yi mettre en place c'est vrai baa ngi fi mais opérationnelul bu waxantee dëgg aussi ministère bi def hmm. opérationnelul te hmm. boo ndee nit ñi internet aussi genn wàllu réew mi amuñu courant wala amuñu waxuma la internet donc boobu bu ñu nax suñu bopp bu ñu bu ñu fooyee tamit suñu xel yooyu yëpp buñ ci jógee daal war nañ cee góorgóorlu ma leen di gërëm bu baax a baax a <laughs> baax professeur ak élève am nag waruñu fenn ñu mais <laughs> du sama élève de raw da a bokk da bokk da ngeen a bokk équipe équipe de recherche bi <laughs> comme comme exemple professeur Raw bu Marseille eh. ni mu bokkee Cheikh Soxna bi nekk fii nekk à l'IRD eh. équipe eh. te Didier Raoult di directeur UHU Méditerranée bu Marseille waaye chef d'unité la chef d'unité numéro 3 Cheikh Soxna docteur Cheikh Soxna nekk chef d'unité numéro 8 donc ñoo bokk lépp yéen it vraiment yéen a bokk équipe de recherche <laughs> ñu ngi leen di gërëm Ndak Diop socio anthropologue da nga ko bëggoon nuyu pour tëj daal peut-être nag suñu xel dem ci ñi nga xamante ni ñu ngi tëdd ci corona bi hmm. Ah. Hmm. tëdd ci ci hôpitaux yi ñii ñu ngi en confinement suñu xel ñu ngi dem ci ñoom ba pare ñu ngi ñaan tamit suñu chef religieux yi ñu ñaanal ñooñu yónnee leen ñaan parce que baax na ci ñu sentir ndax ma du ma bàyyi parce que ah. gars yi dinañ ma ko may alors euh, le thème gestes barrières et les barrières et non les barrières merci à Mahou pour la <laughs> correction hein gestes barrières et les barrières de la lutte contre le Covid-19 vieux les barrières et non les barrières voilà au-delà de ça juste en trente secondes euh, leneen li ñu gis ci jafe-jafe mooy feebar la boo xam ne ñi ko amee kenn gisu parce que feebar bi moo aaju noonu dañ leen di confiner. yóbbu leen foo xam ne presque kenn du fa dugg bu dul waa kër docteur xëy na sénégalais aussi lu mu gisul jafe na mu gëm ko. Mhm. est-ce que loolu bokkul ci vraiment gis-gis trent 30 secondes 30 secondes. wala wala waaw mais mais man nga euh, si parce que xam nga xam nga boo déggee ma ne duñ ko gis famille bi sax mënuñ leen a seeti ba mën a ne ah. li diw day wax lot na son na. waaw xëy na feebar bee demee noonu. waaw mën na nekk waaye xam nga léegi avec les nouvelles technologies là. Mhm. bi mën na nekk fii waa këram gis ko bu fekkee problème image kese la techniquement mën nañ ko régler. non pour yëg-yëg bi daal. waaw waaw xam na nekk fii di communiquer ak waa këram. mais xam nga ah. ñu ngi gis li xew tugal foofu moom musiba bi ñëpp a koy gis. waaw xëy na dañoo nanguwul ni. ni mu xewee foofu mun naa xew fii. waaw loolu lay wax ma ne ma ne léegi nii parce que li xew tugal. Mhm. xewu fi te yàlla tere ñaan na yàlla mu bañ. Mhm. bien sûr mhm. waaye li mu bëgg a wax léegi c'est que pour man sénégalais yëpp xam nañ ne corona am na. problème bi kay. mooy ni ni ñu ko ni ñuy doxalee lañu àndul moo tax ñu ne la moo tax ñu ne la eh, gisaguñu saa <laughs> nañu wut prétexte <laughs> pour pour génnee pour génnee kii waaye li ma li ma bëggoon eh, yekkali rek mooy comme ni ko ndaak waxee que ñu ngi ni ñuy bàyyi xel ci ñu nekk ci hôpitaux yi. Mhm. parce que stigma bi fa lay commencé. te mhm. stigma bu commencé foofu dafay law ci biir société. Mhm. ñaar nit ñi am confiance seen bopp ñu nekk hôpital tëdd. ñu wóor ñu am confiance ni dinañ ci gën ak jàmm bu neexee. tout comme loolu confiance idée de confiance boobu moom mooy law ci société bi pour société bi wóor ko ne moom mun na daan corona. ñu fexe bañ a dugg hôpital. bañ a feebar. vraiment feebar la boo aajowul ci borom poos bu diis. ñoom professeur Cheikh Ibrahima ñoom borom daraja yi mën na leen a dal maara day bu aajuwul ci ci koo xam ne ni defoo dara sa poos te li ci musal nit ku ne mënal na ko boppam. la somme des initiatives individuelles mooy nekk xëy na la solution totale. bu <laughs> bu doon baa ngi noonu. professeur Cheikh Ibrahima socio-anthropologue. docteur Ndak Diop socio-anthropologue ñu ngi leen di gërëm. seen participation ci xeex bi di gërëm di leen sant ci kanam programme télévision a Média. jërëjëf Cissé waaw. jërëjëf Cissé ah waaw. Euh, voilà alors euh, on avait promis. professeur. waaw ñu won gars parce que dañuy wax yéen <laughs> masque yi waaw <laughs> pour finir. voilà. voilà on va faire la photo avec les masques <laughs> jeex na voilà.